sénégalais yëpp ak nag di leen bal ak di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal eh, te ñu gën fee yàgg di ko woor di ko def ni nga xamante doon la ko sunu borom bëggee di ko ànd tamit di ko def ak ñi nga xamante ni kilifa yi rawatina jëmm ji nga xamante ni moo doon jiite julli gi tey mu Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Abdou Khadir ñu ñaan sunu borom mu yàggal ko fi wéral ko jubale teelu yàgg waaye lii réer ci dëkk bi mooy eh, actualité bi mooy li xew ca Ngor Yoff Wakaam sunu mbokk sénégalais yi xam ne ay lébu lañ ci réew mi boobu ba léegi aw ay am fa jàmm amul lan nga jàpp ni mooy solution bi ba jàmm mën am ndax Sénégal jàmm rek la soxla. xam nga comme actualité la ñuy wax moo dugg ci directement président de la république dafa am benn bés mu wax ne fekk mu doon recevoir notaire yi mu wax ne bokk na ci li muy gën a jot ci jàmbat ci réew mi suuf ci la bokk muy foncier foncier boobu tamit bi ñu xamee ne am na problème ba pare dañoo defoon benn commission de réforme foncière. boo fàttalikoo ñoo ngi ko njëkkoon a dénk Doudou Ndoye bi mu ci doxee ab diir bu gàtt ñu jël ko daal di ko moom mu bàyyi commission bi ñu jël ko dénk ko ki nga xamante ni moom mooy euh, Moustapha Souran ministre Moustapha Souran ñu ñaan suñu borom mu dolli ko yërmande fa nga xamante ni foofu la nekk waaye boobu ba tey conclusion yi dafa mel ni gisuñu ko ba tey problème mu foncier boobu moo waral li xew Ngor noonu la amee fu bari ci réew mi mu nekk ay tension yoo xamante ni dañ koy seetaan te mën ko régler bu fekkee le cas spécifique de de de de de de Ngor dangay xam ne ndaw ñi foofu xam nga tey Dakar dafa am lu ñuy wax macrocéphalie maanaam amatul suuf te ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk ci foofu soxla nañu fu ñu tàggate seen yaram soxla nañu fu ñu dëkk mais soxla nañu tamit ëllëg foo xamante ni sax bés bu ñu demee ba nga xamante nii génération yi di ñëw ñëw nañ ñu am foo xamante ni sax dinañ fa mën a am kër te suuf si jeex na nit ñaa ngi koy jël di ko caxat caxatee de façon extraordinaire. donc loolu moo tax ngay comprendre ñoom seen taxawaay ak révolte bi nga xamante ni am na donc li ñuy ñaan l'état du Sénégal di ko ñaan les autorités mooy ñu bañ di forcer loo xamante ni dafay jur jéyee suuf soosu nga xamante ni ñoo ngi ko doon li gën a métti sax mooy liñ njëkk a wax ne moom la ñu nar a def ci projet bi dañoo dem ba ci biir gis ne dafa mel ni namm nañ leneen ci projet bi mais loolu dafay indi révolte sañ li jiitu ci jàmm mooy dëgg mooy ñuy waxante dëgg di def dëgg rawatina ki nga xamante ni moom moo jiite di wax dëgg te loolu sëñ Fallou Mbacké radiyallahu taala anhu daf doon wax lu am solo daf doon wax ne li yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la te xale yi bi ñuy ñaxtu boobu ba tey nit ñi di ko dégg amuñu interlocuteur boo xamante ni mën na wax loo xamante ni moom moo jàpp ci sunu li may wax ni nag nekkul ne damay justifier violence rien ne la violence waaye violence boobu jiitu mooy jël loo xamante ni ñëpp ko bokk bëgg ko aki moo am ñuñ ko jox te jox bi ñu leen koy jox jaarul ci yoon loolu mooy la première violence et cette violence là bu ñu ko combattre dinañ gis ne yeneen violence yëpp après dina mën a dina mën a saafara man daal suuf moom jàpp naa ne lu am solo Sénégal cent quatre-vingt-seize mille kilomètres carrés la il faut que ñu def très attention dañu bëgg souveraineté alimentaire bëgg tamit ëllëg nit ñi am fu ñu dëkk loolu soo ko bëggee sa suuf da koy protéger te tey jii ni étranger yi surtout di amee suuf biir Sénégal yomb na lool. lool lool te suuf tey jii ñuy tukki yëpp xam nañ ko boo demee ci dëkk yi nga xamante ni ay dëkku jàmbur la bala nga fa am mètre ka boo fa deeyee sax duñu la fa suul dañ lay rapatrier ba mel sax doo ko fa am donc encore une fois suuf si war nañ ko gën a fonk war ko gën a conserver boo déggee léegi jëmm jiñ tudd fii nga xamante ni c'était un un visionnaire amoon gis-gis muy Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine boo demee ci archive mi di nga gis ne fépp fu mu mës a dem ci biir Sénégal da ngay gis ne dafay wut suuf soo xamante ni daf koy documenter wutal ko sax li nga xamante ni formaliser ko ba muum ko téye ko ci loxoom te loom la mu fa doon dagg di ko wutlu booba gis na ne ñi téye réew mi ñoo ngi akimoo suuf moom muy projeté pour ñun les générations venir suuf dafa am solo trop c'est la première ressource c'est la première matière première su fekkee mën naa ko waxee noonu mooy ressource bi jiitu ressource bi jiitu suuf la mais mënuñoo jël suuf si nii rek di ko joxee n'importe comment ku ñëw ñu daggal la jox la loo xamante ni tey sénégalais bi bu ko bëggee mënu ko jot ñu gis doxandeem jóge fële ñëw ñu jox ko suuf soo xamante ni sulul jeex la loolu mënul wëy mënul woy mais est-ce jotul tam kilifa yi wax parce que lii ma gis bu fekkee artuwul mën na la yegg fam du neex réew mi. waaw mais mais leen mën na ci am. xam nga li xam nga li li sëriñ Moustapha bu sëriñ Abdou Khadir doon wax léegi mooy responsabilité sëriñ bi kenn ku ci nekk bu assumer niveau de responsabilité am jàmm rek moom mooy am ci penc bi. waaw li li li li li borom xam-xam bi doon wax ne il n'y pas de destin forclos il n'y a que des responsabilités li xew démb c'est une désertion des responsabilités. c'est-à-dire que dafa am ci chaîne de responsabilité bi ñoo xamante ni bañ leen fa soxlaa fekk ñu leen fa mais yéeyi lay jur donc nit ñi yenn saa yi li ñu bëgg mooy ku wax ak ñoom ku leen dëgg waaw te nit ki nag wax dëgg yàlla soo ko mayul fu mu waxee xalaatam mën na koo jëfte su boobaa musiba day am. ëllëg Pape Djibril ci politique lan la ak ak fi réew mi toll ñu yaakaar ci yow. ñun dañoo commencé politique tey jii bés bu am solo la ci man personnellement parce que ñun les serviteurs keroog bi ñu def suñu déclaration politique 22 avril la woon 2022. tey mooy 22 avril 2023 at la ñu def ko at nag ñu def ci dox boo xamante ni sant nañu suñu borom bu baax a baax a baax a baax ba pare sant sénégalais yi. parce que bi ñu wootee wuy si nañ ñu wuy si boo xamante ni jéggi na dayo ñu dem ci élection yoo xamante ni rien n'était donné amuñu woon moyen def élection dans des conditions excessivement difficiles. sunu borom dogal ñu am cinquante six mille trois cent trois voix boo jëlee les deux grandes coalitions ñun ñoo ci topp boobu ba tey nag ñu dox ci dox bu am solo tey jii mouvement ba dem dox na dox bu am solo ba nekk parti politique avec toutes les structures fonctionnelles et opérationnelles muy mouvement des cadres muy mouvement des universitaires muy mouvement des jeunes muy mouvement des femmes muy mouvement des élèves et étudiants et actuellement cadre muy boroom xam-xam yi ñu yor ñoo ngi def liggéey boo xamante ni bu ama am solo la liggéey boo xam dañuy càmbar lépp loo xamante ni moo fi nekkoon document de politique publique ñu càmbar ko saytu ko xool la tax doxul ba nga xamante ni problème yi nga ma wax nii Ngor di am loolu dafa am lu tax mu am. dafa loolu mën nañ xaar 2024 Pape Djibril samp na la. liggéey bi ñu nekk nii di ko def ci biir Sénégal di samp suñuy cellules yaa ngi koy gis bu baax fa Fadel ñoo ngi koy def fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew liggéey boobu bu paree. Euh, xam nga candidature à la présidentielle doo naan sa café rek def ko yi danga leen di jox cër dafa rëy réew dafa rëy du loo xamante ni da naan sa café rek wala soit ñu ñu bëmax la rek jaay la nga dugg ci wala soit nga ciy dem di dem dem boo xam wóor na la ne demoo ñun bés buñ ciy bokk dañ ciy bokk ak fulla bokk ci ak fayda bokk ci ak itte bokk ci ak xam-xam boo xamante ni bu mat sëkk la parce que réew xam-xam moo koy yor fit fit moo koy yor ngor moo koy yor jom moo koy yor parce que liñ lay jox dafa rëy trop muy destin doomu adama yi donc liggéey bi ñuy def nii di wër di consulter sénégalais yi muy jokkook askan wi nga xamante ni tey jii liñ ci am ñoo ngi ciy sant suñu borom liggéey boobu bu matee dinañ ñëwaat xam naa dinaa la woo ñu wax ñu wax ñu wax ndax dinañ ci bokk ak nan lañ ci bokk. yaakaar nga ne dialogue boobee mën na tax réew mi euh, maanaam bi wàññeeku jamono bi am nga ci démocratie la ñu ne nee nañ démocratie la démocratie dafa am de lieux par excellence de du dialogue muy assemblée nationale mu yeneen barab yi nga xamante ni foofu mën nañu faa waxtaane résultat 31 juillet 2022 élection législative bi moom moo wax président Macky Sall moom moo wax ñi yëngu ci politique yëpp moom moo wax les forces vives de la nation li ñu bëgg ci réew mi mooy léegi politiciens yi depuis 63 ans ñoo ngi leen di bàyyi ngeen di jël ay décisions léegi dañ ne. décision unilatérale laa wax mooy nga wéet rek parce que yow yaa am pouvoir nga jël décision bu la neex léegi 31 juillet li génn ci élection yi mooy ngir yàlla dee leen waxtaane réew mi donc nañ koy péncoo bañ ko pàccoo donc appel au dialogue yooyu li ëpp solo mooy mu am une volonté réelle te actuellement pour man le président de la république li mu war a def ci appel au dialogue bokk na ci bokk na ci bi ci jiitu bi ci jiitu mooy mu wax sénégalais yi ne dina organiser élection yoo xamante ni du ci bokk loolu nar a nekk way wu rëy ci Sénégal beneen bi nga xamante ni moom moo ci topp mooy mu jëlee élection ministère de l' intérieur ñu def li nga xamante ni loolu la président Abdoulaye Wade defoon en 2011 génne élection yi ministère de l' intérieur ko Cheikh Gueye à l' ñu jël ko jox ko une personnalité neutre beneen bi nag damay ñaan ñi nga xamante ni dese nañ benn taxawaay bi ci réew mi ñu génn assumer seen responsabilité li ñu war a dox ñu dox ko parce que réew mi réewu jaloog la réew wu waxtaan la Sénégal li fi am nii du lu bees daan na am xëy na façon yi ñoom ñooy wuute te lu ci mën di am rek. dañ daan ko dox waxtaan ko ba mu mujj ci jàmm li may wax toujours mooy Sénégal c'est une promesse de paix et de stabilité sociale suñ julli gii ñu def léegi nara kenn ku ci nekk nara dellu këram li tax ñu mën ko mooy jàmm hmm. donc jàmm jooju nañ ci kenn ku ci nekk na ci teg bakkanam bañ cee tappale daal di ciy dox dox boo xamante ni doxu itte lay doon doxu pas-pas lay doon bañ a naxante bi bàyyi tappale bi les sénégalais dañoo sonn ci naxante bi ak baara yógoo bi dañ ci sonn loolu moo jur lii sañ bi ñun ñi ñëpp tey ji dañu am njàqare ku ci am tey ji kenn ku ci nekk ci sa kër yor nga fa ñoo xamante ni mënuñoo liggéey wala amuñu métier wala bu ñu amee métier tamit amuñu lu ñu liggéey wala bu ñu amee lu ñu liggéey sax lañ leen di fay mënut a tax seen loxo jot seen ginnaaw mais loolu nag dafa am loo xamante ni moom moo ko jur dundu gi métti na xoolal ñoo ngi nii ci korité mënoo gis soble bi kenn mënu ko laal pompiteer bi kenn ci koor la ñu jógee suukar si kenn mënu ko laal mais lan moo gën a métti loolu donc loolu pour man li tax mooy une mauvaise gouvernance boo xamante ni am na te loolu nag man ak jafe-jafe sénégalais yooyu ak taxawaayu sénégalais yooyu ak loolu noonu man moo ma situation boobu sénégalais yi di dund jafe-jafe yooyu moom a gën a yitteel fuuf baara yóggoo politiciens yi. plateforme judo ak li nga xam ne moo maanaam troisième mandat bi ak nga xam ne moo ci ñëw yaakaar nga ne plateforme dina réussir li nga xam ne M23 maanaam réussir woon ko euh, man de su ma sañoon li sëriñ Serigne Mountakha wax laay wax su ma sañoon nguur ak àdduna ak li ci biiram jiite ko jarul benn nit di dee. li ma ji li ma jiite sama conviction mooy su ma sañoon kenn du faatu. mais su ma sañoon tamit politiciens yi dinañ wàññi immaturité bi ba nga xamante ni dinañ mën a parce que xam nga lan moo gën a métti ci politique tey mooy ñoo xamante ni boo leen gisee fii ñu taxaw kenn ku ci nekk daanaka di xaxar moromam di saaga moromam te bu ñu wéetee mel ni mburoog soow xam nga loolu musiba la loolu xam nga jurul jàmm ci réew mi gisoon nga fi ñoo xamante ni jàkkaarloo woon nañ di rayante ñu dox diir bu gàtt ñu ne ñoo raw mburoog xam nga loolu tamit jurul jàmm ci réew mi donc loolu sénégalais yi dañ ne sonn nañ ci. sénégalais yi dañ ne ils sont fatigués ci loolu te yàlla xam na ne tey mënatuñu continuer di conté nombre de morts yi te réew mi li ñuy xaar dafa bari wax naa ne euh, ressource bu ne mën naa feeñ ci réew ñay def politique di di def yëfi yëfi yëfi yëfi gone mu ko waaye pétrole ak gaz gis nga phosphate mën naa feeñ ci réew mu am mal gouvernance te du indi sax musiba donte mën na koo indi or gis nga sunu or bi depuis Kédougou ba tey mais pétrole ak gaz bu feeñee ci réew la responsabilité des hommes politiques c'est de faire faire preuve de maturité et de grandeur la notion de grandeur elle est importante en politique et Sénégal c'est un grand peuple et cette notion de grandeur doit revenir au cœur des préoccupations tey jii yenn saa yi nga dégg loo xamante ni ci sunu réew su génnee bitim réew ñun dañ ciy am kersa trop boo demee xarit yi nga am ci bitim réew bu ñu lay laaj la xew ci sa réew dañ ciy am kersa trop loolu nag jàpp nañ ne mënatul continuer et c'est la responsabilité des hommes et des femmes politiques qui doivent faire preuve de maturité xam ne immaturité politique depuis 63 ans moo ñu taxawal tey jii ci situation bi moo tax immaturité justement des autorités moo tax nga gis démb xale ngor yi def li ñu def.